loolu loo xamante ne su ma xayoon buñ dugal fu ne dina leen koy yëgal ba ñëpp dégg ko balaa mu tax ñu leeral ko waaw. Cheikh Babacar Sarr rek moom kese mënoon na wax. waaye doy bàyyi bu ndaw doy ci. Euh, Ndour encore. mu ñëwaat doole la jëm ci doole alhamdulilah maa ngi sant yàlla Cheikh Moussa euh, du tere dama koy wax toujours Cheikh Moussa xam-xam euh, bi ngeen di wax bàyyi bàyyi euh, Babacar yow mi njëkk a wax bi ngeen wax rek bëgg ma bàyyi ngir xam-xam bu set xam-xam bu dëgg xam-xam bu wér ñun loolu la Cheikh Moussa xam-xam ñun loolu la ñu Cheikh Moussa xamal euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan lépp loo xamante ni waaye ko ci yëngal rek yàlla suñu borom euh, ci barke Cheikh dafa jaar Baye Babacar ñu koy waxee dafa jaar ñu sant Cheikh Moussa ci ñun ci bépp àdduna parce que dafa jaar man dafa daj képp kon dañ koy sant ñu ne bu yàgg dara da ngay demee mbokk daal Baye Gassou man ko de damaa bëggoon nga wóy Cheikh Moussa di wóy di wóy bay yuux ba àdduna bi yëpp dégg ko parce que moo ko yeewoo parce que lu tax parce que bu ñu ko neexoon ne maa ngi yàlla maa ngi Cheikh Tidiane maa ngi lépp lu leen dajee waaye waxu loolu waaye dafa indi leen seen ëmb yi ma firi leen ko ci baax ngeen jël ko dem ci sànni li ci waroon ngeen sànni ko xam ne rek dara Cheikh Moussa def na ko jëpp jëm Cheikh Moussa def na ko jëpp jëm jotaay Cheikh Moussa ku mu neex tànn bi wax parce que Cheikh Moussa yéen a ñëpp Cheikh Moussa yéen ñëpp saa bu Cheikh Moussa ñun buñ ci duggee sax dañuy tiit parce que amul taalibe ak sëriñ parce que ñëpp Cheikh Moussa yee moo waral tomb bi moo moo waral ñi gàtt ci moom moo waral ñi torop ci moom suñu yéene moo doon ñu toog suuf bul dox di waat Cheikh Moussa euh, amul doom amul yaakaar amul dara Cheikh Moussa taalibe Cheikh Moussa. am na doom de. loolu mooy islam loolu mooy ci la jaamu yàlla nekk. Euh, bokk nag jaamu yàlla li nga xamante ni moom la nit ñi yaakaar jaamu yàlla def jaamu yàlla. am na benn taalibe bu ko wax ni encore ñun ci jaamu yàlla ci li ñu mën a nekk. ndépp mm-hmm. xam na ñun mënatuñu mooy yàlla dara. laa ilaha illallah dara génn ko laa ilaha illallah nga xam ko xamee ko ràññee ko ba tax a jënd ndax daal ci waxtu kon yàlla na yàlla barkeel barke Cheikh Abdoulaye. dafa jaadu bu ñu toogee jaboon Cheikh Abdoulaye lu gàtt gàtt rek dinañ wax dinañ ñëkk suñu mosaan wax wax ji amaana benn Cheikh Abdoulaye dafa barkeel mujj. maanaam bu ñu ñëwee nii. kenn ku ne ci ñun xam nga ne bàyyi ma dëgg dëgg moom nekkul la dara man mu ma jeex man ba ma jeex man dafa am lu ñu orma lu ci am daal rek rek Cissé jub rek xam nga ci am daal moom moo waral toogaay bi ma toogee ba nii ngir nag ngir man ci am daal parce que yàlla moo ne itu itu anti muci, kuipai itu itu itu apa? lii bépp daal di si am saa dañuy dox bépp daal di si am saa dañuy dox lii rek mooy daal amul leneen. gis nga bu ñu nekkee sax suñu xel nekk leneen ñu ciy gis leneen. ci bokkaale la ko. jaamu saa dafa ne xam yàlla xam ak jaamu yàlla xam ak yàlla rek doy ñun ñu xam yàlla nag dafa amee ko ràññee ko ñu doon ko yàlla ak ci lu mën a nekk. mel na nag bëriwul mel na lu raar ba léegoo léegi sax mu nekk ci yow dafa am complexe parce que ñi nit suñu bëri parce que bëri nañu ko yaakaar ñun yàlla xam nañ ne moom waaye léeg-léeg sax ñu dajee ci tànt bi nga gis naa li ci ëpp kat nii la wala nangam ci yàlla bi ñu jël ko xamal ko am nañu def ba loolu mooy départage ñun loolu yàq ci ñun Cheikh Moussa dindi na ko ci ñun kon alhamdulilah dañuy sant yàlla alhamdulilah Alhamdulillah, Alhamdulillah, la mu ne yàlla nee na te ab boolaa da ngay du safara yàlla nee na waxtu kenn saa bi si Ababacar Ousmane Ali day dugg àjjana léegi bi tax ñu ne yàlla Muhammad ne Abou Jahal ne day dugg safara seen naa Omar seen naa Babacar day dugg àjjana lan lan lan moo waral loolu am lan moo waral loolu waaye léegi fan la ko yàlla waxee fan la ko yàlla waxee ci xaram yi nga xamante ni dañoo xam yàlla dafa xam ne fa daañu fa la ko yàlla wax parce que dafa bëgg jël dafa bëgg jël yàlla xam mu ne yàlla dañu dugg na sax léegi nan la ko yàlla wax yeneen yàlla moo xam ne xalaatul boppam dara yàlla moo ko wax ci lan waaye ci moom am na ñu ko teg bu mel ni moom te ñëpp yaakaar ko dëgg moom yàlla moo moo toog ci baax bi wax Allah mu ne jàpp su ngeen xëyee suba na ngeen dem liggéey su ngeen liggéey ba wàcc na ngeen dem liggéey dina noppalu ku liggéey du am ku tëdd du noppalu doo wér ci kàlla du ko du ko firi parce que ñëpp dañu ko dégg yàlla ci xel mu seen lay waxee ñu koy dégg di ko gëm di nangu kàddu bi di ko jëfee ndax la nekk dafa daal ci waxtu bu bañ koy yëg si aw saa dara faral di wax ni lépp lu am ne yow ko am ñun waa Kër Thiam daal ñëpp yëg kër Thiam daal ñu ay service daal di amu bi parce que lii def lii def sëriñ xam-xam la si aw saa dara jox nañu ñu ñëpp moo waral da leen ko sant ci lu ne lu ko waaye sante nag xam nañ ko dégg nañ ko danaa nañ alhamdulilah ala kulli la ñu ngi ñaan yàlla yàlla barke barke Cheikh Moussa suñu teewee ci mbooloo wala yi dañuy cat te dañu gëm Cheikh Moussa parce que dafa barke moo waral wax yàlla yàlla barke barke Cheikh mbooloo mi nekk yéen ne dajale na seen addiya jox ñu ko jox ko jox ko Cheikh Moussa ci góor ci jigéen Cheikh Moussa am Cheikh Moussa dafa barke keneen ku ci Cheikh Moussa ndax dafa bari woon déedéet waaye Cheikh Moussa dafa bari Cheikh Moussa dafa bari yàlla nag jamono ñu su bëggee jox dañ koy jox directe waaye nag sax doon mooy waaye directe ñaan leen ma ma bàyyi leen waaye ñu sant ma ma doon alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla barke barke Cheikh Moussa ndam rek ñi ngi ànd ak Cheikh Moussa ak lu mu métti métti ak lu mu réer ak lu mën a am ñun nañ topp ci tool ñun doonu ñu ñuy toppe waaye adduna mooy wëpp topp ñun waa Jokalante parce que métti woon sax Aliou Ndiour. Saal Ndour mu ngi koy nekk ci yow. métti woon ñu ñu tënk ko woon ba doyalee lool ci li ñu gis parce que nit ñi ñooy attali waaye alhamdulilah. ñu amal ci alxuraan kenn du perte. waxoon na nag dafay mën a baax léegi nga wax maa ngi lay def alhamdulilah ba suñu xoolee njaboot wala suñu xool gi seet suñu xel lay dal ñu ngi ñaan lépp loo xamante ni waaye koy mébét ci borom kanam suñu borom barke barke sax ñaan yi nu ma ko waxee xet ko su doon mooy wax ko kenn koo xam dama ko joxe ko mais amee barke sax yàlla la barke barke di jéggalu ci jotaay ma dal wala du ma ko dal